parce que sonn c'est fatigant aussi vraiment ci par rapport à ma famille par rapport à sama njaboot maintenant. Hein. et je pense que war nañ a def jéego damay wax en parabole c'est-à-dire ñu depuis 2016 voilà fin 2015 la gëj a génn wax ci lu mel nii wala wax maa def silence radio, rek mais trop c'est trop aussi day mel ni ce que sax man liñ may reprocher, dafa am lenn lu ragal non non non aw ma lu ma ciy ragal parce que man musuma bokk ci association ni lobby mel ci de près ou de loin lobby boobu ngeen di tudd muy borom lobby ñaari tur yi musuma bokk ak ñoom musuma bokk ci ñoom duma ma tudd seen tur nag di def promotion bi sax comme ni ngeen koy defee ñenn ñi ci Sénégalais yi duma ko def musuma lekk seen xaalis bugguma seen xaalis te duma ko lekk ilaa yow mi diin yàlla teral na ma maa ngi sant yàlla beneen bi ci topp mooy metti na métti boo xamante ni léegi sax dañuy yebal ay nit ñu ñëw ba sama kër ñu dañuy dugg par force bu leen gardien yi téye ñu xeex ñoom dem wu ci certificat médical yóbbu ma ci yoon y a même pas dix jours dem naa wuy ji bi ñu naan dama dem wuy ji affaire oto c'est faux dama demoon wuy ji parce que dafa am ku ma porté dafa ñëw doon xeex sama gardien man fekkee wu ma yëgu ma nu ma buy xeex ak gardien à un moment donné dafa mujj métti De et c'est fatigant ngir yalla war souli ma ngi ñaanaa ce que nous ñu ñu ñu doomu te à partir d'aujourd'hui permettre moi quiconque ak ku à a doon ak fo mën nek ngay wax ci man sama der ci lu ñaaw ko dina la te dès demain am citation situation yi dem ñu wara wuy parce que dotuma permettre kenn di jël dara diko ci sama ñi nga xamanteni ñi ngi dem pour wuy ji ñi may képp kuma ma citation ci sama pôle d'avocat yone lako ak ko mëna doon na ngi ñaan sénégalais yi bu ci kenn ñaan njekk parce que bu ñu jël sama der bi di ma traité du n'importe quoi dal sama kaw di ma wax du n'importe quoi ñom ñëpp xam nañ ma te kenn du ci woté défendre donc buma ma ci kenn ñaan njekk luma yone may ma jël lo xamanteni man yëguma ko fekkewu ma ko melewu ci de près ou de loin li xew tay man téguma sen Euh, indiwuma logistique sama micro laa indi waay lan moo ci sama yoon c'est méchant ce que vous êtes en train de faire c'est vraiment méchant et actuellement il faut que vous arrêtiez il faut ngeen arrêter li ngeen nekkee noonu bataille c'est bien beau mais na nekk musical acharnement bi bëri na ngir yàlla war suul yi man wali Balago sec su fekkee mës naa jël alalu ñooñu ngeen di tudd wala bi farmason wala ku mu mën a doon maa ngi ñaan yàlla yàlla na ma yàlla àtteeg ñi ma koy waxal ci barke Seydina Muhammad baalu ma leen ko tey baalu ma leen ko ëllëg su fekkee nag mës naa koo def wala dama koo doon yàlla na ma yàlla weer ci nu mu gaawee nu mu gën a gaawee ci barke yonent bi wasalaam maa ngi jégalu ndax wax neexul surtout maag wax yu mel nii dafa sax nekkul sax suma suma suma suma suma nature mais à un moment donné trop de silence des nuru leneen quoi je suis vraiment désolé maa ngi autorité sénégalaise ñu jàppale ñu parce que nous artistes ici, ay porteurs de voix lañ mais nous nañu sonn nous trop on est vraiment fatigué salam